alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin yàlla suñu borom ci kattanu yàlla ak mbaaxam dana teg Ousmane dana teg Pastef ci bopp réew mi mhm. yàlla dogal na lool incha allah li ma def ci li ma def ci li ma def ci ci xaalis bare na yow mi wallahi la azim li ma def ci xaalis ngir ngir ngir ngir Pastef bokk bare na waaye incha allah ci kattanu yàlla ci kattanu yàlla ci kattanu yàlla Macky Sall dana fi jige régime bi daan fi jige ñëw daan changer réew mi allah ci kattanu yàlla nga baaxal barki Seydina Muhammad mm-hmm. man maa la ko wax ci barki alquraan karim jële sama numéro bii nga teg yow fan ngay fan ngay fan maa ngi wootee ndar ndar ndar laay yow ñu bëri ñu ngi njort kanaan Pastef du ñu am candidat Ousmane Sonko. gis nañ ba dèjà mu santaane ñu ba Bassirou Diomaye ñenn ñu jàpp na stratégie la nga mën a taxaw nii dignement kan ni Ousmane Pastef ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi 2024. ci kattanu yàlla ak mbaaxam billaahi incha allah ci kattanu yàlla ñoo nekk ci bopp réew mi loolu loo gis ci loo gis ci baatin la wala loo calculer la walla du lu ma du lu ma calculé du lu ma du lu ma kii lu ma sunu borom bi wan la jëxëral barke Seydina Muhammad barke Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke Muhammad Rasulullah kan ci ñoom Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye Bassirou ci boppam mhm. day toog ci bopp réew mi Bassirou Diomaye ci kattanu yàlla ak mhm. man maa la ko wax seen bi li ma li li li li yàlla rek mën lii mhm. seen bi Mm-hmm. damay bañ a wax ci kaw rek damay bañ wax ci kaw mu mel nii leneen la mais fanaan naa fu nekk. yow mii nii. Mm-hmm. fanaan naa fu nekk. Mm-hmm. incha allah ci kattanu yàlla. daa mel ni daa mel ni lii mooy première fois ngay woote kon. lii mooy première fois maa ngi doogay woote. maa ngi doogay woote ci ci ci ci rajo. mais seen bi. ñi ànd ak ñi ànd ak ñi ànd euh, ñi nekk pësëg ñëpp. ay borom ay borom leer lañu leer. Mm-hmm. ay borom dëgg lañu mm-hmm. wallahi la azim ñu nekk Pastef ñëpp ay borom dëgg lañu mm-hmm. ay kilifa yu mag ñoo nekk Pastef di doxal te insha allahu rabbi di ngeen gis changement te booy ñi nga xamante ni dañ demoon bitim réew daan dellu si ci réew mi kon ñuy wax naan Amadou Ba président 2024 da nga bëgg jàpp ne malgré moo nekk candidat wu réew mi mais day ñàkk élection yi yële. Amadou Amadou Ba day ñàkk ci kattanu yàlla ak mbaxam day ñàkk seen bi. Mhm. li ma def li ma li ma li ma li ci xaalis bari na. parce que Mouhamadou Rasulullah Amadou Ba day perte ci kattanu yàlla te di sama numéro bii. Mhm. jël ko nga téye ko di ngeen ma carrément di ma woo ni ma man wala ma woo la ne la waxoon naa la ko bërëb jour sàngam. Mhm. duñ la teg ci kattanu yàlla ak mbaaxam yàllaay maye. te yàlla billahi natt yi mu teg Ousmane Sonko dana ko may ndam. man maa la ko wax. ñenn ñu ñenn ñu ñu ngi wax naan Bassirou Diomaye du mën a nekk candidat ndax dañoo tas seen parti loolu ay njeexintal la. ci képp ku bokkoon ca boobu boobule. malgré loolu lépp yow nga man taxaw ne Bassirou Diomaye dina nekk candidat te moo nekk président 2024. yàlla sunu borom du tëj bunt. tëj fenêtre wàcc ruudu tëj wàcc ruudu bu mu nekk. kon yàlla soxor yàlla soxorul. Mhm. Ousmane Sonko kenn xamul fi ca mu nekk lan la. Mhm. te te day wéetoog suñu borom di ko ñaan suñu borom di ko dafa lu mu bëgg nattu la lii buntu la te lu leer naññ la laa lay wax ni ci kattanu yàlla Sénégalais yi nan dalal seen xel nanu dalal seen xel seen bi seen bi mhm. man maay wax ak yow de mhm. ci kattanu yàlla ak mbaaxam parce mhm. que Seydina Mouhamad incha allah Ousmane Sonko yàlla da koy dénk boobu réew mi dañuy balaa balaa élection wala avant élection lay génn moom Ousmane Sonko. Ousmane Sonko après élection lay génn. après élection lay génn. après élection lay génn incha allah. Hmm, incha allah. après élection lay génn 4 avril Ousmane Sonko dana génn ci kàttanu yàlla. incha allah 4 balaa 4 avril. incha allah ci kàttanu yàlla. Hmm, jërëjëf. ci kàttanu yàlla jërëjëf. jërëjëf ci révélation yu am solo yi ku yàlla may la moo ko daal di waxee noonu ñu mën a xaar avec l' avenir on allah. 77 842 19 euh, 19 allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ku baax ñu lay ziar. ñu lay ziar baax a baax. alhamdulilah waaye ci jàmm. sant yàlla bu wér-wér. yaa ngi en direct. waaw waaw ñu ngi am jàmm baax kay. Hmm, alhamdulilah. waaw thème moom lan la ci Sonko dana bokk du bokk. waaw ci loolu la nekk de. bon Sonko day bokk bàyyi force. Hmm. dootul dootul sa maanaam ñoom ñoom ñoom nguur gi nii. Mhm. fi ndool ñoom nguur gi laa wax. Mhm. liggéeyuñ dara dara dara dara si réew mi moom mooy du lu projet Sonko Sonko du bokk dana bokk. Mhm. ñoom deux mille deux ba ba ba léegi. liggéeyuñ réew mi dara dara dara dara lu ñuy def Sonko si si la xëy si la ñuy gont. nañ ñu nañ maam réew mi ni fi fi fi ndool ni ndaw ñi mhm. ñoo ko war a soppi soppi ko soppi ko réew mi réew mi nii mhm. ñun fi ndool nii sonn nañ trop ñun ndaw ñi billaay wallaay laa la wax liggéeyatuñ dara mhm. ceeb bi yokku na diw yokku na luwaas bi seer na sonn nañ lool lool lool lool lool sa fi ndool nii Sonko rek ma mën jàppale. waaw kon kon kon léegi ñun ñun bu ñu bu ñu xañee kon kon kon Sonko kon kon kon kon kon dañoo bëgg a rey wala. dana waar. kon kon boog fi fi doon nii ndaw ndaw ñi rek ñoo mën a fipp sa sa sa sa bañ a bañ kenn ndax ndax fi doon nii sëriñ si nii nii nii nii nii sëriñ si. allo. maa ngi la dégg. yaa may dégg sëriñ si. Macky Sall lañ ñoom ñëpp Macky Sall lañ waaw. jërëjëf. waaw mu ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal 77 842 19 19 di leen jaajëfal certainement xam naa ne euh, waxtu bi moo ñuy bëgg di xaw di tënk bu ko defee rek euh, bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko bala ñoo tëj euh, bu dul loolu tamit.